parce que y a eu y on a affaibli notre candidat. Hmm. loolu je vous l'avoue. en tout cas ñun AFP. Mm-hmm. y avait un choix qui a fait à moment donné le président Macky Sall bëggoon organiser des primaires xam nga primaire doo ko organiser mun nga tas sa bennoo wala nga tas pas. ouais c'est vrai. les gens ont trouvé benn approche boo xam ne moom mu laaj carte blanche. Hmm. et notre président Niass. même dafa bëggoon décharger wu si loolu mais comme nee na moom mooy homme d'état bi moom moo xam république moom c'est un homme politique mu déng ko mu def rapport bi rapport bi nag on a utilisé des blocs de compétence mmh. de compétences yooyu ba mu génnee ak rapport yi ñu jébbal ko ku ñu ko war a jébbal muy le président Macky Sall mmh. sur ça xam naa rapport bi a beaucoup pesé sur Amadou Ba ñu tànn Amadou Ba donc bu ñu tànnee amul Ba ñëpp si war a ànd. Mhm. ñun en tout cas Amadou Ba la ñu tànnoon. vous l'avez soutenu ba ba mu jeex on l'avait soutenu ba def benn congrès d'investiture. bu rëy avec 4000 personnes. donc ñun on est resté zen avec Amadou Ba correct avec Amadou Ba campagne nañ ak moom ba campagne jeex. Mhm. mais yéen gis ngeen lu xew. Mhm. à un moment donné on a affaibli notre candidat. mais le premier qui ko affaiblir mooy Macky Sall. parce que on a vu que ne gisuñu ko benn yoon ci wetam benn ñaar aussi il a sorti les responsables de l'opposition yi nekkoon ci kaso bi à dix jours de la présidentielle mënuñu ko comprendre mais aussi des actes posés comme le report de la présidentielle maanaam les Sénégalais ñoo dem ba dañoo jéppi ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon parce que am na actes xam ne euh, président Macky Sall posé na ko ah, en devançant président Macky Sall j'ai une fraction de l'APR parce que mooy lan on a accusé Amadou Ba de corruption. Mhm. mais loolu ba jusqu'à présent mu jul mu jul fenn non de toute façon. <laughs> ñu ko war a répondre ëllëg daañu ko répondre. Mhm. question bi ñoom ngeen koy laaj lan moo waral loolu mais en tout cas ñu à l'AFP on a soutenu Amadou Ba et on n'a pas voté cette résolution. Mhm. qui disait que oui Amadou Ba c'est notre candidat on accuse notre candidat de corru de, de corrupteur et ñan ñoo voté résolution bi c'est une fraction de l'APR. nañ ko wax. mu leer. maintenant nag lu tax ñu def ko ñoom ils vont répondre mais yéen aussi soo leen jël seen ay responsabilité wax ak askan wi ñu comprendre mutisme bi xam nañ ne nit ko am fula la xam nañ ne il laisse pas faire certaines choses mais son silence aussi euh, naka lañ ko mën a interpréter. mais xamuñ dañ bokk ci coalition bu ñu bokkee ci coalition. est que cette coalition existe toujours non coalition bi mu ngi fi ba léegi. mais am na loo xam ne ci coalition parce que un moment donné on a dit oui le candidat Amadou Ba nañ ko changé. oui a dit ñett na ci ay plan changé ko. en tout ko jege moo ko wax. man xaw ma mais de toute façon ñun à l'AFP. Mhm. nous avons maintenu notre position. bien que y a eu des pressions sur l'AFP pour que Amadou Ba bañ a nekk. ah oui maa la ko wax tey. des pressions venant d'où. ñoom ñoo ko xam. de l'APR du président Macky non de toute façon ya y une des pressions yoo xam ne les gens ne voulaient. pour ngeen démarquer wu ci moom. ah oui mais nous ku xam Moustapha Niass xam ne nitu kàddu la. Mhm. mënuñu dem investir avec 4000 personnes choisir suñu candidat. tey jii ñooñu wax ñu oui oui candidat bi wartul nekk suñu candidat. kon mën nañu jàpp ne les relations ne sont plus li ñu nekkoon bu fekkee li yëpp xew na ci diggante. par rapport à quoi. maanaam seen ancrage Bokk Yaakaar seen gis-gis seen xàccandoo dóorandoo li ñu leen def ngeen na ngeen bañ ko Moustapha Niass maa ngi koy wax nit ko am fula la on s'attend donc à ce qu'il tire les les les conséquences de loolu yëpp. en tout cas le jour le moment venu y aura un bilan ñoom daañu ko discuter en interne te je pense que les responsabilités seront situées te ku nekk jël sa responsable sa mmh. responsabilité. Mmh. ba noppi ñu mën a ànd ànd. Mmh. ñu mënul ànd nag du ñu ànd. dégg naa for naa ci weewu bay ñu ne Amadou Ba daje ak Moustapha président Moustapha Niass. da nga koy confirmer. du ma ko confirmer parce que yëguma ko yaa ma koy doog a wax. <laughs> mais mais mais seen relation euh, baax na bu ma ko mënee tudd tuddee noonu. mais c'était notre candidat donc voilà donc mën nañ am mën nañ am yaakaar que ngeen continuer compagnonnage bi ak Amadou Ba mais. pas ak ak ñële ah. pourquoi pas cest à bennoo bi mënul tas bennoo bi APR mënu ko tas keneen mënu ko tas donc le bennoo reste le bennoo mais ñu mën a ànd daañu ànd. mën nañ mais on va tirer les leçons mën nañ sous-entendre que di ngeen ànd ak Amadou ak moom. on mun nañ ànd ku nekk tey maa lay wax mun nañ ànd ak ku nekk ça dépend des intérêts qu'on a en commun mhm. les les les un programme commun bu ñu am pour les Sénégalais bu fekkee ñoo ko bokk ku ñëw mun nañ ànd ak moom